asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki taalibe yi ñu ngi nuyu ñëpp te di leen ziar bu baax a baax rawatina mbokki Touba ci kanam euh, commission des finance su commission gestion des fonds euh, ñu doon ñëw di leen leeralal euh, li nga xamante ni dugg na ci Touba ci kanam ci mois de septembre ak li nga xamante ni génn na ci ñu tàmbalee ko ci li fi dugg li fi dugg Touba moo si jiitu Touba ci weeru septembre dugal na deux millions 260 mille 800 euh, bu dee dakaar ci njiitalu Baye Serigne Bousso ak euh, Serigne Alaaji Ndaw dugal nañ 2 millions 874 mille 200 Orange Money bi mooy plateforme bu Orange Money bu Touba ci kanam muy jees 144 jees 621 jees dugal na 4 millions 703 mille cent 454 bu dee plateforme Tigo Cash bi dugal na cent quarante neuf mille six cent vingt quatre Mbàkke ci njiitalu soxna Adja Dior Gueye dugal na deux cent mille ci Diourbel ci njiitalu soxna Ndeye Ndiaye ak euh, Serigne Sidi Sougou dugal nañ trois cent cinquante mille Kaolack ci njiitalu Serigne Babacar Mbàkke mu Kabaro ak euh, Serigne Moustapha Touré dugal nañ six cent cinquante quatre mille am na mbokkum taalibe mu jaayante woon dugal ci liggéey bi luy tolloog cinq millions euh, ñu di ko wax sax Serigne Thierno Lo ci njiitalu Serigne Mor Souran dugal nañ quatre cent vingt cinq mille Louga ci njiitalul Serigne Moustapha Bassirou Mbuub dugal nañ un million deux cent département Kébémer ci njiitul sëriñ Gora Sylla ak sëriñ Tahibou Kébé dugal nañ huit cent mille daayira Baabul Ayaadi bu nekk ci añam dugal nañ cent soixante cinq mille wurusoo gi ci njiitul soxna May Mbàkke dugal nañ soixante dix mille Guddiiri ci njiitalu sëriñ Damba dugal nañ deux cent soixante mille Kolda ci njiitalu Moussa seen dugal nañ cent vingt mille. versement anonyme yi versement anonyme mooy versement yi nga xamante ni identifié wuñ leen mooy ñi nga xam ne dañuy dem ci banque bi rek dem verser noonu mi ngi toll ci un million deux cent vingt deux mille deux cent quarante quatre. Joal ci njiitul Serigne Bassirou caw dugal nañ cent soixante quinze mille Xombol ci njiitul Soxna Xumma dugal nañ cinquante mille. Kafountine ci njiitalu Serigne Jëmb Siise dugal nañ cent mille Kujaan ci njiitalu Serigne Ibrahima dugal nañ quinze mille Bustaan Jaw ci njiitalu Soxna Naar Jaw dugal nañ vingt cinq mille Velingara ci njiitalul Serigne Mbacke Gueye dugal nañ quatre-vingt mille Bokki Jawe ci njiitalul Serigne Taalakan dugal nañ soixante mille loolu mooy li fi dugg ci zone nationale bi zone nationale bi mooy li dugg ci réew mi Sénégal loolu bu ñu ko boolee mi ngi toll ci million 61 millions 466 mille 203 euh, bi ñuy def reboisement bi mooy euh, garab yi ñu doon samp ci yoonu Mbàkke wi am na jaayante bu fa duggoon ci liggéey bi mu toll ci 300 mille Euh, làmp yi nga xamante ni Touba ci kanam indi na ko muy yi nga xamante ni dañ koy joxewaat mu dem ci buntu kër yi am na ñu ci versé woon lu tolloog un million trois cent soixante mille ñu ñëw ci zone Europe zone Europe dañ koy tàmbalee ci Portugal ci njiitalu Serigne Mouride Wade dugal nañ sept cent vingt huit mille cent francs euh, Suisse ci njiitalul Serigne Ndiaga Aw dugal nañ cinq cent cinquante cinq mille deux cent soixante et un ci njiitul Serigne Malick Dieng dugal nañ un million deux cent quatre vingt mille trois cent trente cinq France ci njiitul Serigne Mouride Ndaw dugal nañ un million treize mille sept cent cinquante Italie coordination Italie bi dugal nañ deux millions trois cent quarante mille six cent vingt neuf Allemagne ci njiitalul Serigne Abdou Salam Faye dugal nañ quatre cent cinquante six mille cinq cent quarante six loolu mooy li jóge Europe bu ñu boolee li jóge li jóge Europe yëpp mi ngi toll ci six millions trois cent quatre vingt mille six cent vingt et un zone Amérique euh, Argentine ci njiitalul Pape Soda Sey dugal nañ deux cent quarante cinq mille cent cinquante Brésil ci njiitalul Serigne seex Ndiaye jëwrin dugal nañ un million cinq cent États-Unis d'Amérique ci njiitalul Serigne bu Seck dugal nañ un million huit cent quatorze mille loolu mooy li fi dugg ci zone Amérique buñ ko boolee mi ngi toll ci trois millions cinq cent cinquante neuf mille cent ñu jëm ci Afrique dañ koy tàmbali ak Nigéria ci njiitalu Serigne aline Badara Sinan dugal nañ lu tolloog cinq cent soixante mille Guinée Bissau ci njiitalu Serigne Moudou Atta Seck dugal nañ sept cent quarante six mille cinq cent Cap Vert ci njiitalu Serigne Abdou Lahad dugal nañ cinq cent mille Afrique du Sud ci njiitalu Serigne Mor Dieng dugal nañ sept cinquante mille Burkina Faso ci njiitalu Serigne Lamine Guèye dugal nañ un million sept mille trois cent Mali ci njiitalul Serigne Alioune dugal nañ lu toll ak huit cent soixante-trois Gabon ci njiital Serigne Pape Ciss dugal nañu huit cent quatre vingt mille cinq cent bu ñu boolee totalu li juge ci Afrique mi ngi toll ci cinq millions trois cent trente mille trois cent loolu mooy li nga xamante ni moo dugg ci Afrique ci weeru septembre bu ñu boolee li juge ci Sénégal muy son national bi ak li juge ci Europe Euh, ak asi ak Amérique ak euh, Afrique lépp day toll ci soixante dix huit millions quatre cent trois mille deux cent soixante quatorze kon mois de septembre li dugg ci Touba ci kanam ci compte yi mi ngi toll ci soixante dix huit millions quatre cent trois mille deux cent soixante quatorze ñu indil leen li nga xamante ni moo jëm ci li fi génn muy décaissement yi. décaissement yi liggéey bi li ci ëpp ci chantier yi la jëm dañ koy tàmbalee ak euh, chantier Boberel chantier Boberel mooy poste de santé bi Touba ci kanam di def foofu ci mois de septembre bi def nañ ci lu tolloog neuf millions huit cent quatre mille sept cent cinquante chantier Kër Gol moom it poste de santé la bu nekk foofu euh, mois de septembre bi def nañ ci cinq millions cinq cent quatre-vingt-huit mille six cent soixante chantier Daarul Xadim Euh, daaru xadim tamit poste de santé la bu nekk foofu def nañ ci six million cinq cent soixante six mille santé université ba ci mois de septembre def nañ ci cinq cent cinquante mill commission réalisation commission réalisation euh, am na ay frais yu ñu doon def muy euh, camion citerne bu ñu jënd ak am na frais yu ñu doon def Côte ca màggalu grand màggalu basam basam ba ak euh, tracteur yi ñu fi doon indi transport bi ak batterie bi ñu jëndoon pour tracteur bi ak gasoil loolu bi ñu ko calculer mi ngi toll ci un million cinq cent cinq mille reboisement commission reboisement commission reboisement bi mooy li nga xamante ni moo jëm ci garab yi ñu doon def ci yoonu Mbàkke wi def nañ ci lu tollu vingt deux millions quatre cent quarante six mille quatre muy lu jëm ci garabu koko yi ak grillage ak poteaux yi muy àndal yëpp loolu mooy li ci ci mois de septembre commission communication def nañ ci ci weeru septembre bi luy tolloog un million quarante huit mille commission massification def nañ génn nañ ci lu tolloog six million six cent quatre-vingt-douze mille loolu mooy li jëm ci kesku yi nga xamante ni Touba ci kanam doon na ko defar ak exposition bi nga xamante ni defoon nañ ko ca place de l'obélisque bi ñuy ubbi jumaa jumaay Masaalikul Jinaan ak yeneen fere yu jëm ci euh, ubbiteg jumaa ja ak euh, budget bi ñu génne woon ci màggalu Daaru Xudoos gi charge fixe yu Touba ca kanam mooy salaire yi lu jëm ci salaire yi ak euh, location bi ak restauration bi loolu mu ngi toll ci deux millions six cent soixante deux mille cinq euh, ci waajtaayu màggal gi euh, ci lu jëm ci assainissement bi Touba ci kanam jëndoon na pomp ak moto pompe mu toll ci huit millions sept cent cinquante mille poste de santé ba nekk Lansar am na ay liggéey yu ñu ko doon defaat mu toll ci un million trois cent trente six mille cinq cent am na frais yu ñu doon def tamit mu jëm ci gasoil yi yu oto tubaa ci kanam yi ak euh, transport transport collecteurs yi ak euh, camion ledd bi bi ñu koy génne frais yu ñu ci doon def euh, ak frais bancaires yi bu ñu ko calculer loolu mi ngi toll ci deux millions huit cent treize mille cinq cent quarante cinq buñ boolee lépp li nga xamante ni génn na ci mois de septembre bi mi ngi toll ci soixante neuf millions sept cent trois mille trois cent cinquante cinq li fi jotoon a dugg ci mois de septembre bi toll ci soixante dix huit millions quatre cent trois mille deux cent soixante quatorze buñ ko ci génnee kon liy des ci mois de septembre bi day toll ci huit millions six cent trente neuf mille neuf cent dix neuf ci mois de août bi compte Touba ci kanam yi li ci nekkoon mi ngi tolloon ci quatre cent soixante neuf millions deux cent quarante et mille six cent soixante six suñu ko boolee kon compte Touba ci kanam yi ci fin wu mois de septembre day nekk ci quatre cent soixante dix sept millions huit cent quatre vingt et un mille cinq cent quatre vingt cinq quatre cent soixante dix mille cinq cent quatre vingt cinq loolu mooy li nekk ci compte Touba ci kanam yi ñuy jëfal mbokk yëpp rawatina waa Touba ci kanam ci njiitalu sëriñ Abibu Mbàkke ak euh, sëriñ Tàkko ak euh, sëriñ Abdoulahat Abibu waaye ci njiitalu président Abdou Fatah Gueye ak euh, président commission des finances muy sëriñ Modou Mamoun Gadiaga di sant bu baax waa administration bi ci njiitalu sëriñ Xaarim Diouf ak euh, groupe Touba Info ci njiitalu Serigne Fallou Ndiaye ak euh, Serigne Bakke ñu leen di sant bu baax a baax di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullah